Baba ngoom maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi lay fay. Euh, Baba ngoom nga nekk euh, secretaire euh, général bu SUTES di syndicat unique des travailleurs de la Sen'Eau 22 mars bi marqué bés bu ñu jagleel wàllum ndox ci àdduna bi ban xalaat nga ci am. waa ah, merci encore une fois Sabine merci vraiment vous avez pensé à nous di la gërëm rek di la sant di ñaan yàlla le 22 mars mooy euh, dañ ko institué mu journée mondiale de l'eau di institué ko en 2013 ONU moom moo ko organisation des nations unies moo ko euh, def institution en en 1993 ni ñu ko gisee nag mooy euh, lan moo ko tax a jóg ñun dañ ne c'est garantir une eau potable mooy ñu fexe ba ñëpp am ndox toutes les populations mondial am ndox mu baax mhm. mu leer mu yoo xamante ne mën nañ ko naan pour que ñëpp man ko man si jot bu ko defee tamit mu am loo xamante ne xayma yoo xamante ne même buñ ko defagulee di ñu si soor pour que nit ñi mën a am ndox mu doy te du leen du leen gaañ parce que ndox tamit bu baree mën na tamit gaañ risque yooyu yëpp tamit parce que ndox dañ koy utiliser mais ndox tamit day gaañaate bu ko defee nu mën koy utiliser à bon escient te mu bañ a gaañ nit ñi gaañ mooy mu bañ a am ay inondation wala ndox moo naan boo xamante ne baaxul ak yooyu yëpp loolu tamit yëpp ba prévenir si loolu moom daal moo tax a jóg journée bi euh, tey incha allah. voilà nga gis ñu gis ni aussi que ndox dafa cher fii ci Sénégal euh, lan mooy expliquer expliquer cherté bi nga xamante ni moo am ci ndox mi parce que consommateur yu bari dañu gis ni seen eau bi mu ñëwee euh, seen consommation wala seen facture ndox biñ daan faral di jot dañu ko doubler wala ñu tripler ko lan mooy expliquer mbir mi Baba Ngom nit ñi dañuy euh, ñu bare dañuy wax ne ndox mi dafa cher ndox mi cher woon parce que boo ko seetee euh, le mètre cube bi amoon ba léegi yokkuñu ko yaakaar naa depuis plus de dix ans nit ñi le mètre cube boobu la ñuy fay waaye nag dafa am benn facteur bu si euh, yokk mhm. mooy nit ñi daawuñu am ndox à tout moment léegi nag yàlla def na bi ñu indilee KMS trois que nit ñi dañu dañuy am ndox à tout moment donc ne fii xamante ne benn yoon nga fay sangu wala ñaari yoon léegi mën nga fi sangu juróomi yoon wala ñetti yoon parce que nit ñi léegi au lieu woon ñuy duy ay ay ay barigo di ko denc léegi dañuy am ndox à tout moment loolu benn facteur la boo xamante ne dana yokk tamit euh, yow sa facture alors que da ngay yaakaar ne ndox mi dafa yokk te ndox mi yokkuwul waaye li ngay am ndox moo bare ba nga di ko consommer loolu moo tax euh, sa facture bi yokk. donc loolu mooy expliquer cherté facture yi. Baba Ngom lu ne mel ñu bari duñ ko nangoo dégg de. non duñ ñu ko nangoo dégg parce que boo demee si nit mm-hmm. moom mu waxoon na la ne moom mu ngi doon am benn yoon euh, par journée ndox léegi ak tout moment. bu demee si robinet bi bu xellee ndox mi ñëw mais loolu tamit dina yokk dina favoriser euh, ndox mi euh, facteur am cher loolu rek la nit ñi mënuñu ko dégg am parce que kii doon euh, da nga naa man benn kër la kenn yokkuwul waaye benn kër la kenn yokkuwul waaye ndox mi nga doon am ni nga ko doon amee léegi yokku na ba léegi abondamment nga koy am loolu moo war bi waaye ndox mi le prix du mètre cube n'a pas augmenté sérieusement boo ko seetee nga xool ko bu baax le prix du mètre cube n'a pas augmenté waaye nag possibilité yi nit ñi am léegi am ndox mu bare à tout moment loolu moo tax mo waral facture yi du yokk la majeure partie Mhm. Euh, beneen laaj euh, Baba ngoom di euh, qualité ndox mi ndox mi nga xam ne mooy xel li ci robinet yi parfois dafay am xet parfois mu am couleur boo xam ne ñu bari duñ ko ñemee naan askan wi ñu bari sax léegi dañuy dem di jëndi eau minérale pour naan ko wala di ko toggee lan ngay wax ci côté boobu. waaw man damay wax ne waa Sen'Eau xam nga ndox mooy liquide bi xam ne moom la ñu gën au monde. dama ne boo demee sunu laboratoire yi boo demee si laboratoire yi nekk si dëkk bi ndox la ñuy gën a surveiller pour que loolu moo tax ma ne la waa Sen'Eau ndox mi ñuy joxe c'est une eau potable waaye nag ndox mu nit ñi ndox mu leer ak ndox mu potable defe naa mënuñu ko xam ñu ngi gis rek ne ñuy dafa xaw a xàll ñuy dafa weex tal mm, mm. ñu yi ñuy joxe wala yeneen yi ñuy joxe la majeure partie sunu ndox mi moo ko gën a potable bu fekkee ne consommation pour ñun rek la ndox mi seen eau di joxe moo gën a euh, potable que ndox yeneen yi parce que ndox yeneen yi substance yi rek la ñuy dindi ndox mu weex daal parce que man loolu bët mënu si yegg waaye nag ñun li ñuy joxe mooy ndox mu lee ndox mu baax moo xamante ne boo ko consommé sans danger waaye nag ni ñi la majeure partie dañ na am ndox mi bu xonqee rek wala mu am beneen couleur rek ndox mi potable te potabilité nekkul si xonqaay bi parce que suuf mais day andiwaale couleur am parce que dañ ne la l'eau est incolore inodore et sans saveur mais li muy àndaale fa mu jóge tamit day àndaale couleur boobu loolu moo tax ñun tamit ndox mi yenn saa yi xam xaw a waaye nag potabilité de ndox mi nit ñi mën nañ ko vraiment consommer c'est de l'eau potable. lan moo waxal yenn quartier fii ci Ndakaaru ba léegi pour ñu am ndox euh, dafay nekk jafe-jafe lan moo koy expliquer exactement Baba. effectivement parce que am na quartier yoo xamante ne euh, dañu nekk en hauteur am na quartier yoo nekk dañu nekk dans une zone basse xam nga bu ñuy bu ñuy kii ndox mi fii def fee xamante ne moo gën a euh, suufee ndox mi day daw dem fa loolu nag mooy waral ñenn ñi am ndox ñenn ñi du ñu am ndox ñi nekk nag dans des zones en hauteur ñu tamit fokk tamit ay par des mécanismes yoo xamante ne euh, travailleurs ñoo koy def pour que pompe ndox moomu mën a dem si foofu loolu moo tax ñenn ñi à un certain moment ñii duñu am ndox ñeneen ñi duñu am ndox en en plein temps waaye nag dans la journée c'est sûr que toutes les populations de Dakar incha allah rabi dans la journée dinañu am ndox. waaw euh, ah, waaye ñenn ñi mën nañu am ñu am. Mm-hmm. léegi ñenn ñu am ngoon waaye nag dans la journée daal incha allahu rabbi toutes les populations de Dakar dinañu am ndox. Mm-hmm. Euh, yan mooy disposition yi nga xam ni Sen'Eau jël na ko wala politique bu bees boo xam ni tëral ngeen ko pour muy Ndakaaru wala quatorze régions yëpp ñu mën a am ndox mais tamit am ndox moo xamante ni euh, dafay sell te wóor comme ni ñu koy waxee eau portable waaw moo tax ma ne la disposition yi ñu jël xam nga yokk mm. nañu KMS 3. Mm-hmm. léegi ku nekk xam na ne niveau léegi ndox mi mu ngi ñëw état bi tamit am na yeneen disposition yu mu jël. et par rapport à désalinisation bi parce que par l' intermédiaire de la sonnette boo demee ma cap ma euh, Mamel ñu ngi fay euh, ñu ngi fay defar usine bi bu ko ndoxu géej bi ñu yokkaat ko si sa euh, si biir réseau yi ko defee nit ñëpp mën a am ndox te disposition yi ñu jël l' ensemble du Sénégal dans le périmètre affermé tey jii mën naa wax ne waa CNO périmètre affermé bi yëpp am na am na ndox waaye nag état Sénégal li mu war a yokk mooy que mu xool de telle sorte que tous tous les villages tous nous toutes les régions du Sénégal mais ñoom ñu am ndox am na en na pour que mu créer ay forages wala tamit ak yooyu les privés yi xam ne jox nañ ko ñu jëm leen a gën a gën a gën a appuyer pour que defee Sénégal l'ensemble des euh, de la population sénégalaise mën a am ndox loolu daal vraiment mooy idéal bi waa Ndakaar am ndox wa Tëngéej am ndox waa euh, Ngaparou waa ñii amuñu ndox mais loolu c'est pas l'idéal waaye dans le périmètre affaire mais tey jii laa mën a wax ne ku nekk Sen'Eau euh, tey sa produit amélioré nañu par rapport ak ni nga doon amee ndox Mhm. Euh, monde rural bi moonte day seen o géré ko mais yan suggestion euh, ngay wax état wu Sénégal euh, pour ñi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi mën di am ndox bu baax comme ni nga xamante ni ñi nekk ci taax yi noonu lañ koy amee. d'accord àll bi. Mhm. ak ak Ndakaaru defe naa benn la nous sommes une population une et indivisible. Mhm. yaakaar naa lii am ndakaar moo waroon am dans toutes les régions. waaye comme dara matalewul loolu moo tax ñu wax euh, l' du Sénégal ñu suggérer l' état du Sénégal à l' que ni ñu defee euh, Sen'Eau am na fii ay ay euh, organisation privée boo xamante ni ñu gën leen dooleel bu ko defee créer ay forage ak yooyu yu bare ñoom ñu mën a jox nit ñi nit ñi tamit bañ a fay lu cher beneen bi tamit li ma si yokk mooy que généralement ñi xamante ne ils sont pas dans le périmètre affaire mais de la CNO ñoo gën a cher te alors que ñoo gën a appauvrir lool nag état bi war na ko war na ko xoolaat yow mënuloo gën a pauvre car Dakar yow ñu di la privé di la jaay ndox ndox ma gën a cher loolu tamit état bi war na si jóg état bi hmm. loolu moom état bi war na si pour gën a dimbali les populations les plus démunies. Euh, beneen laaj euh, mu soxal ñi liggéey ca euh, Sen'Eau fi ñu toll nii nag o gis gëj nañ leen dégg ngeen yëngu-yëngal lan moo ko waral da ngeen am ak ci ñaxtu yi ngeen daan ñaxtu ci seen point de revendication yi waaw wala déet seen condition. waaw am na waa am na temps yii la passé ñaxtu yi bare woon na ak yooyu waaye nag ku nekk gannaaw autour d'une table defoon nañu séminaire euh, semaine bii passée trois jours au niveau de Saly pour séminaire de négociation bañ fa génnee tamit vraiment tous les syndicats les cinq syndicats étaient représentés bu ko defee on a trouvé des solutions ak aw génn ak protocole d'accord boo xamante ne liggéeykat yëpp daal vraiment kontaan nañu. waaw loolu bi ñu ko génnee pro protocole d'accord bi sax mettre nañu ko euh, yóbbu nañ ko inspection du travail pour pour signature bu génnee dinaa leen jox copie ngeen xamante ne il y des avancées notoires euh, au au niveau de la CNO sur le plan euh, de la gestion. Mhm. laaj bu njëkk euh, laaj bu mujj plutôt Baba Ngom euh, est-ce que yow d'accord nga ñu jox ndox mi ab société boo xam ne dafay nekk société purement sénégalaise. waaw man lay je suis pour que ñu jox société boobu comme ni mu demee woon SONES avec deux E mais nag avec une gestion plus rigoureuse. parce que bu jëkkoon bi ñu ko doonee bi mu doonee benn ku nekk xamoon na ne la gestion n'était pas rigoureuse parce que nit ñi dañu doon def lu leen neex di gérer nu leen neexe taataa yi bare ndox bi bare waaye nag bi ñu ko privatiser ku nekk xam na ne fi mu nekk ndox mi tane na nit ñi am nañu ndox waaye ñu ngi fay seen i facture kon nag buñ ko delloowaatee sénégalais yi il faut que ñu seet des sénégalais yoo xamante ne rigoureux yoo xamante ne dans la gestion ñu confier leen ko man day si lool laa tendre vers ñu jëlaat lép delloo ko sénégalais yi pour que sénégalais yi man ko yor parce que tamit ñuy liggéey si trois entités yooyu yëpp. ay ay sénégalais rek la ñu kon nag sénégalais yi am nañu euh, savoir faire am nañu savoir être lan moo leen dese woon une gestion rigoureuse et gestion rigoureuse boobu tamit bu ñu ko amee rek si biir ñooñu c' est que ne ñun mënoon nañoo yoraat sunu ndox yoraat sunu courant yoraat sunu téléphone yor lépp parce que il y euh, euh, ay sénégalais yoo xamante ne mën nañ ko parce que fa ñu fa ñu nekk ñëpp ñëpp. ñoom ñoo koy defal seen bopp. kon Baba Ngom Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité. merci encore une fois vraiment man tamit kontaan naa si yéen trop ndax tamit yéen vous pensez toujours aux travailleurs bu pensez toujours aux syndicats di leen gërëm rek di leen sant noonu day vraiment nous marquons notre disponibilité. Mm. sur tous les euh, débats yoo xamante ne. war na mën a Sénégal sur le plan de l'eau et sur les autres plans parce que nous nous sommes euh, des syndicalistes aguerris dans la tâche. Baba Ngom may fàttali yow yaay secrétaire général bu euh, SUTES di syndicat unique des travailleurs de la Sen'Eau jërëjëf Baba Ngom jërëjëf Baba Ngom